woote tey jii ci bisu euh, le premier mars euh, ci li fi jotoon a am tuuti si élection mairie yi passé élection mai euh, conseil yi fi jotoon a am si ville bi am sunu ay conseillers yu ñu tuumaal ni dafa am nu ñu taxawee mooy ñeenti conseil yi nga xamante ni moom la grande la grande coalition wallu ci waaye moom la am ñu tuumaal leen ne leen ñoom ñoo jàppale camp bi nga xamante ni mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñun nag ci bés bu mu amee ñëpp rafet nañu délégation bi nga xamante ni moom la président Wade yónnee boole ci ki nga xamante ni tey mooy président Karim Meïssa Wade yónnee ci duru délégation boobu mu ngi ci jitaloon ki nga xamante ni mooy chargé des structures monsieur Saliou Dieng ñëpp gis nañ ko ci mu ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy Mayoro Faye ànd ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Dieng bi nga xamante ni mooy chargé des élections bi nga xamante ni moo nekk si la grande coalition wàllu nekk si biir parti démocratique sénégalais bi ñu ñëwee ñëpp gis nañ seen taxawaay mooy que parti bi li mu sant mooy le PDS dafay opposé donc ñun ñu ngi si camp opposition bi camp opposition bi mooy lan mooy ñi nga xamante ni tey ñooy nekk ci yeew yi donc ñaari kan la bennoo la ak yeew yi ñoom ñu xamal nañu carrément que PDS dañ leen sant seeni conseil pour ñi nga xamante ni ñoo nekk yeewi ñu votel leen loolu mooy information bi ñu indil jox ñu ko ñun ñuy ndaw parti bi bokk ci biir parti bi te ñun ku ñu xam-xam ni coalition bu bu structure la ñu yor parti bu structure la ñu yor ndigal la ñuy wéyee mooy lu magu parti bi wax lu kilifa parti bi wax dañ koy appliquer ñun ay ndaw lañu rek ci parti bi décision yi du jóge ci ñun ci kaw lay jógee donc euh, ñu ngi rafetlu ñoom tamit seen seen décision parce que loolu yëpp dalay wan ni ba léegi ni parti bi dafa nekk parti bu bëgg a dem au pouvoir parce que parti bu bëgg a dem au pouvoir moom mooy nangu affronter nangu xeex ak ki nga xamante ni tey mooy ki nekk au pouvoir donc ñu ngi rafetlu bu baax a baax seen intervention di rafetlu bu baax a baax jot euh, intervention wu ki nga xamante ni mooy kilifa gi parti gi mooy ki nga xam mooy maître Wade di rafetlu xamante ni mooy suñu candidat en 2024 di Karim Meïssa Wade ñu ngi leen di xaar xaar boo xamante ni eh, bu doy waar la parce que suba histoire li tubaab naan l'histoire retiendra ça suba bés bu am solo la ci parti bi bés bu am solo la ci ci ci législative yi di ñëw législative yi di ñëw bés bu am solo la te ñun jàpp nañ ni la grande coalition wàllu ci législative yi war na mën a jëlaat lu bari au niveau de Guédiawaye malgré Guédiawaye jël nañ fi mais ci kattanu yàlla bëgg nañ si législative yi ñu am lu ñu ci jëlaat te loolu suba da ciy am solo suba na suñu conseil yi xam ni Sénégal ak leen di seetaan le monde entier mu ngi leen di seetaan te suba lañu war a wane que ñoom ñu ngi ba tey ci parti bi ñu nekk ci parti bi mooy nga nangoo déglu ñooy la jàppal nga jàpp ñooy la bàyyil nga jàpp bàyyi suba la ñu war a wane askan bi que ñoom toujours ñu ngi fonk président Abdoulaye Wade suba la ñu war a wan askan bi que toujours ñu ngi fonk yi nga xamante ni mooy candidat bi 2024 muy Karim Meïssa Wade suba la ñu war a wan askan bi que ñun ñuy bokk tey si fédération bi départemental bu Guédiawaye que ñun ba tey ay njiit lañu ñu ba tey suba la ñu war a wan ni ñoom war nañu mën a joxaat confiance suba la ñu war a wan ni ñoom ay bañkat lañu suba la ñu war a wan ni ñoom guerre bi ñu leen doon tuumaal amul donc ñu ngi leen xaar suba suba bis bu am solo la si si la grande coalition suba bis bu am solo la ci Guédiawaye parce que dañu jàpp ni moom moo waroon woote wootewul parce que bi wootewul mooy ki nga xamante ni moom ki mu jot a wax ma tudd bëgguma turam bëgguma tudd turam di ko may promotion parce que moom moo waroon woote te wootewul boo yoree ay ndaw yor sa njaboot bu réeroo amee wooteel bu ñuy dóorante ñu dóorante après ñu àndaat yàgg na am si parti bi mais wootewul ñun ñu woote pour def benn déclaration de presse buy wane ni ñun lii lañ bëgg lii la parti bi sant parce que boo gisee woote bi gën a am solo parce que dafa amoon ay wax yu jotoon génn ci jour bi mooy que PDS dafa votel diw te kenn santu leen ko ku ci votel Benno Bokk Yaakaar sa responsabilité bopp la parti bi amul fenn fu mu taxawee ne votel leen Benno Bokk Yaakaar ci kaw ba suuf donc loolu moo doon moo taxoon tey ñu def suñu déclaration parce que suba suñu do votelee Benno Bokk Yaakaar seen responsabilité la bu ñu votelee tey li nga xamante ni tey mooy Yewwi kooku moom décision parti la ak ñi nga xamante ne ñoo bokk ci fédération bi donc moom tey ni mu taxawee boobu ba léegi wootewul mu ngi communiquer de gauche à travers communication bokkul si suñu ay suñu ay gis-gis parce que ni muy communiquer ñëpp xam nañ ko carrément que communication doyuñu moo tax tey lii am bu communication bu ñu doyoon ak taxawaayam bu ñu doyoon defe naa point déclaration de presse bi du am. mbéjum kanam borom a koy fajal boppam kenn du ñu mbéj ñaar yoon. mbéyum kanam borom a koy faj boppam kooku du parti bi moo koy réglé parti bi li mu mën mooy tranché parti bi jiitalu ko ay nit ñu nekk fii si département bi ñoo ko jiital te nit ñi ñu koy jiital fii ñu bëri ñu ngi si biir salle bi ku mel ni Abbas ku mel ni Khady Dieye ku mel ni exemple keneen ak keneen ñoom ñoo ko fal donc parti bi li mu def mooy validé ñun nag li ñu def mooy bu ñu voté lu parti bi y aura des sanctions si kattanu yàlla dinañ leen sanctionné par A par mais ñun ñi nekk PDS jegewuñu waa Benno Bokk Yaakaar te bis ni bi tey bis ni bi tey bis bi tey li ñu toog nii war na leeral lu bari parce que tey bu ñu àndoon waa Benno du ñu woote point de presse bi du ñu woote déclaration de presse bi mon frère donc tey dalay wóor ni ba tey ñu ngi ci opposition dañuy opposé ki nga xamante ni mooy Macky Sall dañu opposé ak moom di opposé ki nga xamante ni tey mooy Aliou Sall particulièrement Aliou Sall moo ñu fi tax a toog bu ñu defee déclaration de presse bi c'est grâce à Aliou Sall parce que Aliou Sall moo bëgg a foqati suñu ay conseillers bëgg jël yenn conseillers jë jënd euh, leen donc li ñuy wax mooy ñun jàpp ñu woon ni si pour ñun le jour J munoo wax tey ba suñu conseil yi du ñu votel ki nga xam mooy yeew yi même Ablaye Wade ak Karim Wade am nañu mbetteel am na mbetteel. mais loolu la ñu jàpp ñun loolu lañu jàpp ñun loolu la jàpp parce que Ahmed il a 39. suñu benn conseillère bi kii c'est à féliciter kii conseillère la ñëpp gis nañ ko mu ngi nii Ndeye Rama mooy mooy benn bi yokk si si Ahmed Aïdara muy quarante donc kii mooy 40e conseiller bi votel Aliou Ahmed Aïdara celle-là mais les trois autres ni ñu waxee seen communication donc mooy Ahmed li mu la proposé ànduñu si boo àndul ak li mu la proposé mooy kon yow da nga da nga def plan B donc ñaar rek moo am da ngay votel Ahmed wala nga votel Aliou Sall Doudou Wade quant à déclaration bi mu def barki démb moom la concerné Doudou wàdd waxul si turu parti bi li mu wax moom la concerne ñu dañu yor parti Doudou wàdd li muy wax am na droit dem fu ko toog mu wax mais kooku moom la concerné or que nag Cheikh Dieng responsabilité bi mu wax mooy chargé des élections parce que bu ngeen gisee Cheikh Dieng am courage wu Cheikh Dieng nee ngeen kay dafa jege Ablaye Wade Cheikh Dieng am courage wu tontu ki nga xamante ni mooy Doudou Wade mooy mooy foofu mooy dëgg bi foofu la nekk donc ñun ñu ngi 100 pour cent ak Cheikh Dieng li mu wuñu tey ànduñoo ak Macky Sall tey ànduñoo ak Macky suba ànduñoo ak Benno suba ñun dañuy opposé dañuy opposé parler à l'opinion nationale et internationale de ce qui se fait sentir au Sénégal particulièrement à Guédiawaye parce que les caméras les oreilles sont braquées à Guédiawaye parce que tout simplement il y a un phénomène qui se fait sentir c'est parce que la liste de Yewwi vient de terrasser le président Macky Sall. Oui, quand on terrasse son frère, je pense que c'est c'est Macky Sall qui est terrassé, c'est tout Benno qui est terrassé. Malheureusement, ils ne veulent pas gober ça. Alors nous, étant d'opposition, étant dans l'opposition, nous avons contribué à ça parce que vous avez compris que c'est un travail de belle lurette qui nous a amené à cette situation. Donc, si on est aujourd'hui ici, le comité d'initiative et d'éthique qui a appelé composé des membres de différentes sections des cinq communes de, du PDS, de la fédération départementale, des partis qui composent cette grande coalition Wallou et ses alliés, qui ont soutenu la liste de la mairie de ville, qui sont respectueux de la ligne directrice de notre parti. Parce que, et le PDS, et les autres partis, nous nous sommes dit que nous sommes dans l'opposition, nous allons œuvrer pour que l'opposition continue à poser ses tentacules Alors, on s'est dit que nous avons, après avoir décliné notre feuille de route, on s'est dit que nous allons réaffirmer aujourd'hui notre ancrage dans l'opposition. Mm-hmm. Nous sommes et nous restons dans l'opposition. Mm-hmm. Nous nous sommes dit aussi qu'on a des conseillers municipaux qui doivent respecter ces lignes du, de de, du Parti démocratique sénégalais et de nos alliés, qui consistent à soutenir Yewi. à soutenir l'opposition. Parce que nous ne pouvons pas presser pour une autre paroisse que la paroisse de l'opposition. Et nous nous sommes dit que cette élection du bureau municipal doit, nos conseils doivent impérativement et exclusivement voter pour les conseillers qui se seront proposés pour la liste Yewi. Donc, euh, nous, quand on a appelé aujourd'hui, c'est juste pour vous dire Nous les exhortons pour que demain, qu'ils votent la liste Yévi, qu'ils votent les conseils qui seront prépositionnés par l'opposition. Pour rien au monde, nous sommes avec Bernard, encore moins avec Alussal. Cause pour laquelle qu'on a appelé pour leur dire demain, nous sommes l'opposition d'être un, unis pour aller ensemble. Nous ne voulons pas ne pas le faire et que demain on dise que nous ne l'avions pas fait. Nous l'avons fait pour que nul n'en ignore demain que l'opposition, le PDS, unanimement, est pour Yéwi, soutient le maire Ahmed Aïdara qui a voté dans les, qui a gagné dans les règles de l'art. C'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. Donc, ceci n'étant pas fait demain, nous allons nous réunir pour apprécier et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et pour poser des actes forts, cause pour laquelle on a appelé aujourd'hui. Nous avons Maître Watt qui est le père fondateur du libéralisme au sud du Sahara. Maître Abdoulaye Watt qui a fait le président Macky Sall. Maintenant, le problème qui se fait sentir juste, c'est parce qu'ils veulent l'honorer en lui, en donnant son nom au stade, que ça agite tout ça. Nous, une fois de plus, dans le Parti démocratique sénégalais, nous respectons beaucoup Doyen Doudouat qui est bon, Nous respectons beaucoup Cheikh Dieng, mais on tient à vous dire ce que je dis là. Moi, je fais partie du comité, de la commission communication du comité directeur. Il n'y a pas de problème à notre sein. Par contre, il ne s'est jamais choisi une question de retrouvailles de la famille libérale. Parce que c'est le président Ablayot qui a ajusté ça. Il a d'ailleurs écrit un document pour le retrouvaille de la famille libérale. Mais puisque Macky Sall était dans une posture inconfortable, il était dans une posture de, de, de, de ligoter la famille libérale, le PDS. Il nous a, il nous a persécutés. Il, nous a, il a tout fait. Nous retenons. Il a exilé notre candidat. Nous retenons. Cause pour laquelle, quand il nomme le stade Maître Abdoulaye Wade, nous applaudissons des deux mains, mais on attend des actes forts qui vont suivre, tels que rétablir Karim Wade dans ses droits, pour que Karim Wade revienne au Sénégal. Voici les actes que nous nous attendons. Revoir le procès, j'aurais même souhaité qu'il y ait parce que ils ont le tour du monde, ils ont des commissions rogatoires jusqu'à présent, rien n'a été reproché à Karim tout simplement, pour ne pas extrapoler sur cette question, de rétablir parce que Karim Wade en 2024, impérativement, il sera notre candidat et inéluctablement sera le président de la République. C'est pas un phénomène il est nous sommes représentés ici c'est la quintessence des membres du PDS du département de Guédiawaye ils sont là s'il n'est pas là nous on s'alarme pas nous vous nous connaissez tous on est représentatifs on est membre du comité directeur du bureau politique du PDS si on parle au nom du parti c'est tout à fait crédible mais on tient tout simplement à dire aux absents que pour le PDS. Faites tout pour honorer nos alliés. Faites tout pour que personne ne dise que nous, on a trahi. La trahison n'est pas PDS, encore moins Maître Abdoulaye Wade. Nous ne pouvons pas dresser une ligne de conduite du Parti démocratique sénégalais avec nos alliés et que tu refuses de, respecter cette ligne de conduite. Juste après cette élection de demain, nous allons nous réunir pour apprécier ce qui se fait sentir. Et nous allons nous orienter et proposer quelque chose parti. C'est sûr que nous n'allons pas nous n'allons pas travailler jusque-là parce que les conseillers, une est là parmi nous, très brave, très brave, je dis bien, elle est là, Nairama. Si jamais ils ne font pas ce que nous, nous voulons, c'est une cotisation qui leur a amené là-bas, nous allons apprécier. On a cotisé nos efforts, on a tout fait pour qu'ils soient euh, conseillers municipaux. Donc ils doivent continuer à obéir ce qu'on ne veut pas, Au cas contraire, nous allons sévir parce que nous ne voulons pas faire du renfort.